donc di signer entre autres on a besoin des dirigeants yoo xamante ni dañuy les difficultés di wàcc sur le terrain pour comprendre les préoccupations les plus élémentaires en tout cas des sénégalais janoo ak ñoom même bu fekkente ne leen di yuuxoo même bu fekkente ne par exemple dañ leen di xas mais ñu confronter avec cette réalité là pour mën a comprendre sénégalais lan la dund au plus profond leur chair et s'ils parviennent à comprendre la force parce que bu fay continuer utilisation de la force dañuy ñëw indi la force publique déguerpir entre autres donc boo ñëwee nga confronté à la situation nga xool ñi nga xamante tey ji ñoom ñooy les responsables de premier plan les plénipotentiaires nga convoqué leen comme ni ko Ousmane Sonko defee waxtaan ak ñoom janoo ak ñoom je crois que euh, il comme ni comme ni Albert Einstein doon wax il n'y a pas de problème sans solution il n'y a que problèmes mal posés et à partir du moment où Ousmane Sonko a compris cela gis nañ que en tout cas après sa visite en tout cas au niveau de de de Colobane mu moom mooy population bi convoqué les commerçants discuter Et à, à l'issue de cette discussion-là, on a constaté qu'un début de solution a été préconisé. de am monsieur Ousmane balaa may dugg ci deuxième partie émission mesdames messieurs ma leen di rappeler rek ne maa ngi ak Cheikh Ousmane Touré donc euh, kii di Pape Ahmadou Mbaye ñu nekk nag di ci émission bu am solo bi di treize minutes de vérité émission bi nekk nag tey ji ñaari pàcc yoo xam te ni maa ngi ci actualité bi ci laa nekk te xam naa léegi ma jeexal ko mais ngeen permettre ma mu nuyu ñi nga xam te ne ni ñoom ñoo ñuy suivre ah, parce que ñun ak ñoom ñooy defandoo bi ah soxna Touré madame Thioub kooku suma yaay ju baax la donc depuis maa ngi koy nuyu nee na ma macha allah ñu ngi nuyu Cheikh Ousmane bu baax a Cheikh Ousmane a ngi lay fay sa mbokkam Touré Touré bi waa kii sa mbokk la sa mbokk la donc Moussa Ba Vieux Sarr Badiane Iba Diagne yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ah, di leen wax da ngeen di partager euh, direct bi su ko defee ñu àndandoog yéen def émission bu mucc ayib Zaza Salzman maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax ah jërëjëf ah, moom moom su ma suma suma xarit la waaye dafa may dóor ay xeer rek Ahmad Yama ah, Banaar donc Mame Bay Daw yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ci kanam incha seen minute boo xam te ne nii ngir sargal leen kañ leen nuyu leen gën leen nuyu ci nuyooyu gën ci nuyoo di asalaamaaleykum wa rahmatullah alors Cheikh mm-hmm. euh, beneen ci maa ngi koy wax euh, au moment où bi kii di daaneel euh, Pape Ahmadou Mbaye mm-hmm. gis nañu démb itam un opposant na Bocoum mm-hmm. donc donc yëkkati Bocoum <laughs> sa xarit sa xarit kàddu mais liñ ci gën a mën a jàpp rek mooy jàpp na ne ni Ousmane Sonko di def mooy l'actuel premier ministre nekkul lu dul jaxase mélangé il n'a même pas les pour pour être waaw day tâtonner en quelque sorte ndax euh, amul capacité yi daal yi war a mën a tax mu nekk premier ministre jàpp nga loolum de waaw Thierno démb génn na annoncé nañu ko en grande pompe de na dana génn wax waaye Thierno ci wax la dëkk boobu ba tey man looloo ma jaaxal ku noppiwul nooy looy annoncé sa wax xam nga tey am na koo xam ne bu nee danaa génn wax di nga ne c'est tout à fait normal dafa noppi woon waaye Thierno bi bu nguur gi faloo ba tey chaque jour mu wax c'est l'homme politique le plus active sur les réseaux sociaux waaw kooku lan lay annoncé na dana génn wax ma déglu ko mu wax ba pare mane li mu waxoon ca la jaaraat hmm. waaw beneen bi mu wax am lu lënt lënt sama xel bokk na ci point yu ma ko dégg yi mu interpellé la premier ministre l'affaire euh, du domaine maritime ah ci plage Anse Bernard bi na ko d'accord na domaine maritime bul laal la tudd waaye hôtel Azalaï mmh. nooy def ak sa xarit yi ko moom mën na ko kaay ma laaj la ceer fu mu nekkoon bi Macky Sall di inauguré Azalaï ak lu mu ca wax xam nga wax boobu boo ko déggee dafay mel ne ñoom Sonko ñoo inauguré Azalaï ñu bëri loolu la ñuy wax de. demeewul noonu de Macky Sall. ñu fa fréquenté est-ce que du ñoom dañ ci am part. Azalaay ko inauguré en grande pomp avec son ministre Mame Mbaye Niang bëccëg ndara kàmm du sax guddi bëccëg ndara kàmm réew mi ñëpp fekkee ko demal nga revisiter page am ndax da nga gis benn texte. mbaa benn tweet mbaa benn question mbaa benn interpellation wala benn dénonciation par rapport ak domaine maritime bi boo xam Thierno Bocoum def na ko envers l'ancien régime amut. donc kon du du du du du du loo xam ni daf ko poser parce que daf ko inquiéter euh, mbir la bu mu yittoo noonu non c'est juste essayer de mettre mal le nouveau régime yéen a ngi nangu domaine maritime mu jàmbur mais am na ñeneen ñu ngeen jox loolu la Thierre bëggoon wax indirectement seen seen. seen assainissement bi ci domaine maritime bi dafa am ñu ngeen ko jiital am ñu ngeen jox am ñu ngeen nangu alors que demeewul noonu hôtel Azalaï bi ñoom Sonko di génn fekk nañ Macky Sall ñu tabaxo yi ñëw inauguré ko ba nit ñi di fa dem di fa dëkk moo waral premier ministre ak le président bi ñu koy door a fal Pastef jëlaloon leen ko fay facture vingt et quelques millions période boobu ñu fa nekkoon loolu ñu ñu informé ñu bëri xam nañ ko du la contribuable ko fay parti Pastef ñoo ko fay. muy benn beneen ba xam nga Thierno Bocoum daf ma daf ma dëggal maanaam Thierno moom damaa waroon jaar fii rek kaalawu woote na ñëw leen ma tanil leen. Hmm. lu tax Thierno lu ma waxoon fii fii fii laa ko waxee woon deux ans ci ginnaaw moom la dëggal. Hmm. damaa waxoon ni Thierno Bocoum li politique bi nekkee nii du nekk candidat du jàppale candidat du nas du nocc du def du dindi dafam lu may xar mooy nekk opposant wu Sonko au pouvoir hmm. opposition boobu dafay neex say droit dañ koy respecté duñ la buntu xatal duñ la boycotté duñ la persécuté hmm. comme que ñoom ñemewuñ moo tax bi Macky Sall nekkee fii opposé wuñ ko mais comme que Sonko moom mooy seen neexi ñebe ndax moom démocrate la ñu ne nañ ko opposé te opposé Sonko dafay xaw a neex lu tax mu bu dee dañu déroulé statut chef de l'opposition xam nga ñu bëri dañ koy fàtte budget de deux milliards la statut de l'opposition chef de l'opposition ak benn statut comme premier ministre ngay bénéficier wu ci ay privilèges ak ay avantages. Mhm. <laughs> gars yi seen tëb di dal bi loolu la ñuy xëccoo. looloo taxoon ñuy ñuy seen seen tëb di dal gi yëpp loolu la. deux milliards ya hmm. xam nga vote nañ ko. dañ ko teg mais appliqué guñ ko mais vote nañ ko. c'est déjà prévu donc buñ ko appliqué yow ci sa retour du jour au lendemain xam nga gars yi liñ tàmm la. duñ ay liggéeykat xamuñ yow li nga xam yeewu liggéey nekk fii di tourner émission bay miir daanu gaa yi xamuñ loolu gaa yi dañuy nelaw ba miir ñu yeew yàtt seen sikkim ba mu rafet teintre mm. ko génn def benn pos def pression nguur yi woo leen compal leen ñu dem toogaat seen ruq yooyu nag moo jeex moo tax ku ne de agité wu mais daal quel gâchis laay wax sur son ndax parcours fi mu jaar mënoon na apporter yu bëri voilà gisoon naa ko feneen du ñëpp a war a mun a nekk président waxoon naa ko juge dem na ko du ñëpp war a mun a nekk président te bu ñëpp nekkul président mun nga doon leneen am ngeen expérience ci foo jaar ci loo xam munoon nga contribuer ci avancement wu réew mi waaye du man rek danaa ci xëpp suuf vraiment c'est regrettable. c'est regrettable alors ban jàngat ngay def ci opposition bi ñu gis donc le temps ma ñëwaat ci Cheikh Ousmane nag puisque maa ngi ci deuxième par rapport à cette damay paraphraser Babacar Justin Ndiaye dafa amoon habitude di wax ne l'opposition à le ministère de la parole opposition moom wax rek wax wax wax mais aussi xam nga booy opposé wu xam nga Ousmane Sonko ñoom euh, danoo war danoo war a ñaan yàlla opposé wu comme Ousmane Sonko ni mu doon opposé parce que Ousmane Sonko il s'oppose avec des idées moom da def ay propositions bind livre teg lu lu gouvernement Macky Sall teg par rapport à des questions très sensibles mu apporté ci des répliques yoo xamante ne tey jii nii kat cest à le débat mais opposition boo xamante ne tey jii de manière prématurée yow à chaque fois yaa ngi xaar tey jii nii kat si ay di langaamu di arc-bouté si ay détails yoo xamante ne nii amul amul amul importance da lay gën a ridiculiser parce que tey jii nii. ñu ñëpp dañuy souhaiter à ce que en tout cas nguur gi am opposition parce que nguur gu amul opposition aussi donc euh, à parti du moment où nous sommes dans une démocratie il va falloir obligatoirement que les uns et les autres ñu mën a joxe seen seen seen xalaat ci seen gis-gis par rapport ak ñi nga xamante ne tey ji ñoom leen dénk nañu doxale mais bu fekkente ne par exemple loolu am na il va falloir que aussi ñoom ñi nga xam ñoom ñooy opposé wu ñu opposé wu avec def de telle sorte que les propositions yi nga xamante ne tey jii nguur gi mu ngi koy def ñu apporter ci ay contre production mais pas par exemple rester sur les réseaux sociaux di wax ay waxi vaar di rappeler toujours à Ousmane Sonko ses précédents donc je crois que loolu c'est des choses yoo xamante ne intéressé wul Sénégalais yi donc booy opposé wu da ngay par rapport à une offre pro euh, programmatique quelle est l' programmatique de Pastef ñu ngi déroulé en tout cas am nañ benn projet le premier ministre n'a pas encore fait sa déclaration de politique générale pour montrer aux Sénégalais que kat ñun fii lañ bëgg a jëlee Sénégal yóbbu ko fële donc il faut commencer par faire des propositions boo demee nag ba gis ne par exemple nguur gi en place li nga xamante ne tey ji diggoon na ko sénégalais yi en terme de matérialisation ça pose problème bu boobaa nag am nga possibilité nga génn nga dut baaraam li nga xamante ne ni jàpp nga ne doxul mais daal moi j'ai comme l'impression que les gens ils s'acharnent en tout cas malencontreusement sur Ousmane Sonko oubliant même que Ousmane Sonko il n'est que le premier ministre du Sénégal le euh, il n'est que le premier ministre du Sénégal parce que Sénégal am na président de la République mais ñoom daal j'ai comme l'impression que c'est la personne de Sonko qui dérange qui dérange Sonko à chaque fois que bu defee sorti ñu jéem a xool benn élément boo xamante ni c'est un détail ñu langaamu ci en tout cas pour exister je crois que il doit faire parce que ce régime-là euh, est, est, est porté par par par donc de la plus belle des manières et à partir du moment où ils ont été portés par le peuple de la plus belle des manières bu fekkente ne da nga leen a bëgg opposé wu da nga koy ci ay ci ay bases yu claires opposé leen à travers des idées opposé wu leen à travers une offre une une une une contre-offre on peut dire par rapport ñoom li nga xamante ne tey ji proposé nañ ko Sénégalais yi mais par exemple di langaamu ci ay ci ay voilà di langaamu ci ay ci ay détails di di jéem discrédité discréditer di diaboliser la personne de Ousmane Sonko je crois c'est pas important parce que Ousmane Sonko comme ni ma ko waxee rek il n'est un pan par rapport ak li nga xamante ne ni moom mooy régime bi dans son entièreté donc il va falloir maintenant que ñoom ñu xoolaat li nga xamante ne tey ji moom mooy seen seen seen seen seen toggaay jéem a davantage en tout cas à faire des propositions pertinentes faire de telle sorte que li nga xamante ne tey ji nguur gi mu ngi koy teg bu ñu amee ay suggestion ñu def ko bu ñu amee loo xamante ne tey ji nii kat war nañ ko ci mën a critiquer ci lu baax loo xam ne dina ñu ñu ko mais ñu éviter véritablement les les débats de de moom mooy premier ministre bu Sénégal actuellement.